gu mag gi danaka yeg pour jege ci gal gu ndaw gi yeg ci gal gu mag gi rek risque yi ci fuko nit nat romb nako parce que ci bir yeg bi ak ñeukante bi ak kenn ku nekk tal sa bop am ño xamne ne mën nañu rëcc sax daanu ci bir geej gi amat na sax am ñu fa rëcc parce que kenn ku nekk sa bakkan mo la ñoroon donc ñu yeg ci gal gi man ku melni man bima yegge ci gal gu mag gi lima ma wax moy deug deug gal gi li mom risque mënu ko romb parce que bëggoon nga dem jaralon na lu nekk mais nak après ngay dogo comprendre ndek jeli wo avion bi nga ñew ba tok ci geej gi dogo janok reality bi xamna li sama bakkan mën na fay dess bon ñu tok ci gal gi ma tok ba yag lima fekk nit ci bir gal gi danaka ñun biñuy ñew fekk nañ gal gi fess te man lima bayyi ci tafes bi danaka tollona ak lu nekk ci bir gal gi ñoo ñu ñep wara ñew fekk suñu mané non mais ñun dañuy dé ma bëgg waccat waye comme mënuma fey joge ci gal gu mag gi pour ñëwaat gal gu ndaw gi danaka lool moy kay day rek fii de yàllaa fi des kon nañu toog bàyyi suñu bopp yàlla ñu toog yëf yi metti gaal gi nit ñi yéeg nit ñi yéeg nit ñi yéeg ba kenn xamatul li fa tollu ci nit ci biir gaal gi parce que gaal gi suñu la waxee ki koy organiser da lay wax ne la noo gaal gi condition yu baax ngeen di nekk da ngeen di lekk da ngeen di naan buñ duggee ci gaal gi yéen ñëpp ay noppi ay jigéen ngeen di doom parce que da la koy wax ba nga mel ni yow avion nga yéegi ndekk kiy wax ak yow sax moom bokkul ci ñuy jël gaal gi bés boo yéegee nga koy gëj a gis moom fu mu nekk du ci yéeg du ko jege ay ñeneen lay jël ñooy dawal gaal gi ñoo koy organiser donc bi ñu yéegee ba ci loolu bu ñu la nee cent cinquante personnes su ma ko xoolee ci sama bopp bi may dem ànd naa ak suma xarit suma xarit ànd naa ak xaritam nit koo xam ne moom paas na ci bu demee bay bëgg dem dina yëgal xaritam na la ma bëgg jël gaal gi donc bu nee cent cinquante jàppal ne am na yeneen cent cinquante yu brûlé parce que kuy ñëw di nga ko yëgal nit te comme kiy def day sàcc donc moom day ñëw rek na moodu juróomi moodu daw ku ciy moodu ci guddi googu Nous ko organiser ba dem ci benn nombre boo xam ne xeyanu na donc gal gi dafay surchargé C'est rek premier risque boo xam ken kenn mënu ko 200 ou 300 personnes Il a jëm ba espagne dëgg-dëgg bu ci yàlla génnee bakkan du fa des nous loolu gaal yi dem yépp noonu lay demee ñu dugg ci gi ki organiser programmé 150 personnes finalement Galgi gi dem ak 300 ou 350 personnes te moom ba muy def ay nduggam la muy njëkk a sóor mooy damay jënd ndugg lekk pour huit wala dix jour pour cent cinquante personnes waa cent cinquante personnes nga programme yi seen dund finalement nga am trois cent cinquante personnes bu dee dix jours xam nga ne juróomi fan war naa jeex kon naka la ñuy dundee ci gaal googu nga gis beneen facteur risque ñëw mooy xiif ak mar boo xam ne di ngeen ko dugg ci biir gaal gi su weesoo coono xat-xat loo bu metti ak tëdd di nga gis koo xam ne vingt-quatre heures suba ba jant soo da ngay taxaw doo toog parce que amoo espace boo toog bu la yàlla dimbalee ba nga toog 24 heures fi nga toog doo fa jóg parce que boo jógee doo toogaat ndax gaal gi xat gu muy xat métti gu muy métti lekk gi boo xëyee suba gi benn potu kinkili baa ngay ndekkee mooy kaasu plastique moom ngay ndekkee ak benn paquetu mbiskit yu ñuy jaayee 100 francs loolu boo ko lekkee da ngay toog ba 18 heures pour doog a lekkaat benn ceebu keccax bu weex boo xam ne buñ ko toggee ak janti pneu janti camion mooy nekk fourneau bi buñ ko toggee 18 heures ngay lekkat bu weesoo nëbboo woon lekk boo yóbbaale yow te buñ ci trois personnes fi ñuy bi di ko delloo ci ginnaaw parce que gaal gi day toll foo xam ne mun nañ nekk 8 jours mën ak yow duñ gisante ndax bari nit waaye lekk bi boo nekkul jàmbaar dëgg fi ñu ko tibbee ak fu ñu koy yóbbu bu ñu waxee ma tibb sama morom tibbi balaa moo yegg ña ci ginnaaw lekk gi jeex parce que nit ñi dañuy mujj xiif ba mel ni ay rab ndax xiif bu metti boo lekkee loolu balaa ngaa lekkat suba li suba la bu fekkee nëbb woon lekk ci say sàq naan bi c'est deux fois par jour boo xëyee suba naan da ñaan ñu nattal la nga naan bu fekkee yóbbuwoon foo naanee ngoon ngay naanaat moo xam tàng na moo doon imaginel dund bu mettee noonu ci biir gaal gi yàlla dogal aussi yooyu yëpp lenn la ci condition yoo xam ne metti na waaye lu gën a metti mooy nit koo xam ne nit nga dëkk ci kër am noo miinoon di dundee nga dugg ci gaal nit kuy lekk di naan am na ay besoins naturel yu mu war a def nga nekk ci 300 personnes bëgg a dem toilet nooy def nga toog da ngay gis ñu jël benn potu tamaate wala bouteille essence bu jeex bidon bi ñu xar ko ci digg bi di ko joxante kii bu demee toilette jox la ko nga jox kii ñu koy jàllalante ba ci géej gi. sukki bëggee tuur ndox nga nga jékki-jékki toog ba yàgg ku mel ni man mësul dugg ci géej jàkkaar fees dell lenn nga mën mooy fomp ko parce que da ngay gis kuy wàcc ba lu verte yow mun na jënoog yow wàcc la taloo ko wala bu fekkee yàlla dogal nga jéggi géej gi nga jël ci ndox mi tuuti fomp te condition extrêmement difficile damay wax ni sax c'est pire que l'esclavage parce que esclavage dañoo ñëw yeew la par force yóbbu la waaye foo xam ne da nga joxe sa xaalis ba pare ñu dugal la ci condition yoo xam ne lu ko gën a metti amul ngay dund comme mala ci biir géej gi parce que déjà nit amul lu dul sutura mais nga jano ak 300 personnes summeeku ci seen kanam pour dem toilette nga pare ñu jël pot bi di ko jàllalante pour nga lekk da ngay diiroo pour nga saw boo sawee sa kaw dérangé woo kenn boo ko toilettee sa bopp dérangé woo kenn nit janoo ak yow wàcc sa kaw ba ngay muy muy li dérangé wul kenn donc condition yoo xam ne c'était inhumaine nga nekk ci géej gi mu taw fekk la fa ku mel ni man tey ak su may morom day taw fi nga toog parce que da ngay toog wër na la boo jógee doo toogaat fi nga toog doo bëgg jóg parce que da ngay xam ne bu ma jógee duma ma toogati ndax dafa xat taw bi taw sa kaw mais nga xëyaat naaj bi lakk la lakk la ba sa yére yi wow fi nga toog ba finalement am na nit ñoo xam ne sa yere bi nga sol soko jappé diko di ko xëcc der bi da ciy nak ndax ndoxu xorom bi ak naaj bi yag so jappé sa yere bi xëc sa deru yaram day toppaale ci sa yere lu wéx mo fay dess amna ño xamné biñ démé sax ba yalla dimbalé ñu génn mënatuñ sol yere mbàjj ngay jël parce que lo xol der bu jaune la parce que der bi nekk ci kaw dañ na dañ na ba jeex presque sol yere ndax tok bu yag ba lépp xolleeku parce que ndoxu xorom bi amna instant yo xamné geej gi day yëngu dugg sa kaw ba nga toy nga toog ba yàgg naaj bi ñëw lakk la ba nga waw boo jógee amatoo soxla toogee parce que lépp der luy der ci yow day commencé di dëñ donc nga xool ne xiif mar lépp luy mettitu àdduna ñàkk nelaw di nga ko dund ci biir gaal gi balaa ngay wax wax yegg wala ñàkk yegg gaal gu toj géej gu yëngu ñun yooyu yëpp fekk nañu ci biir géej gi parce que détail yëpp mënoo ci dugg ndax temps bi waaye pour wax rek ne yooyu yep dund nañ ko xiif mar dem nañ ba ñun ñu réer ci biir géej bi ñu réeree ñu toog ba yàgg xamatuñu fu ñu ne ci àddina asamaan ak suuf rek ngay gis ñu toog ba yàgg ñu ne mais ñun sunu àdduna fii la yem wala man dem naa ba gëm ne fii la sama adina yem Galgi, gi toj na ci kanam lépp luy gaal man ci gaal googu laa ko xamee ay cuun ay parala parce que loolu yëpp foofu nga koy déggee ñu naan parala yaa ngi dugal ndox parce que gaal gi day jël ndox ñëpp dañuy ngàcc 24 heures sur 24 pour bañ gaal gi dig ñu toog ba yàgg ma jël gilet bi ma yoroon parce que dañ jox ay gilet sànni ko parce que dem naa ba gëm ne dëgg-dëgg dee ñëw na te fii la ñuy dee ma ne man mënuma fay takk géej gi ni mu seddee ni mu métti nga takk lii pour dee bu yéex ma dindi gilet bi pour bu dee ñëwee na gën a gaaw parce que fii moom dara mënut ñu fi fekk dañuy dee xiif nañu xamatuñ fu ñu nekk ba pare gaal gi mu ngi dugal ndox benn moment ma toog ba ci yàgg am benn waay bu ma romb ne ma damay dem ci boutique bi ma ne ko looy def ci boutique mu ne daam lu may jëndali ci sama yaay mu ne ko boutique te man asam géej kese laay gis keneen romb la. gaaw mu ngi ci lële te fekk dëgg-dëgg man dee na. yàq sama àddina yàqale àddinam parce que dundam yëpp dara dootu ko saf fu ne dina xalaat ne doomam ngi fa te dëgg dëgg doomam dellu ma ne yàlla leen rek laa ñaan nangu naa fii moom du ma mucc damay dee waaye ñaan naa la nag bu dee dese naa benn ñaan yàlla bu ma deewee ñu force sama jëmm xam na loolu dem naa bu toll ñu ñu toll ci moment boo xam ne gaal gi sax togg nañ ba mu lakk essence bi ñuy toggee lakk na benn jamono bant bi yàlla suturaan ñu ba mu fayal yàlla dogal na ba ñu ci suturaan ci tënk rek ñu mujj ñu mujj yàlla an nanguwul ñu mujj ñu for fekk boobu def nañ presque treize jours def nañ ba à quinze kilomètres Espagne ba ñeenti hélicoptère ñëw tiim ñu ñu bind ci armada ñu gis ni policiers yi ak waa croix Espagne ak seen lii ñu nekk ak détails yu bëri nag li ñuy wax nañ ko ci waaye comme détails la xam ne daanaka day juróom lépp moo tax du jaar di taxaw waaye daal ci li xel mën a nangu. dëgg dem nañ ba bi ñu yàlla bëggee dimbali daal for nañu léegi nga gis ne loolu lépp nga dund ci biir géej ci xiif ci mar ci condition yoo xam ne une semaine doo nelaw wala boo nelawee da nga taxaw wala da wéeru wala da tëdd nelaw yoo xam ne ay léeg-léeg nit yuuxu ci biir géej gi parce que géej gi day yëngu nit yuuxu na yuuxu mag yuuxu na ay sama njaboot gi nit ñi dañuy tiit sax di ko saaga parce que ñëpp a jaxasoo yàlla dogal bi ñu jógee ci loolu dellu si ba ñu dellu si ci dëkk bi nekkaat suñu activité bopp ñu bare bari man bi ma ñëwee daanaka ñenn ñi sax dañ foogoon ci est-ce que xelam demul parce que la ma njëkk a ci gaal gi mooy ragal yàlla bi muy def ci yow ak gis ne dëgg-dëgg fee ma nekkoon ku dul yàlla mënu fa fekk donc lu la nit wax rek boo ne nañ sant yàlla ñu ne kii est-ce que dof na parce que kii lenn lañ la xamul mais a effectivement li ngay wax parce que da nga xam ne dëgg fii ku dul parce que amatul fit bi nga jàppoon ne yëfi fit la bi ñu départ moom mu ngi passé ne ba xam ne fii maa ngi dem ci tàgguma kenn dama ko woo musuma xam ci àddina ne moom day tuux moo woo ko 3 heures du matin mu tàggu suñu këram ñëw ma ne ko tàggu ma yaay tàggu ma pap mais bu ma ñëwee ba gis géej gi dama ragal ne mën naa fi des ma ne naa la ko wax ma jël sama téléphone jox fi mu toog la génnee mal bëri taal ma ne ko doy jóg mu mais li ma wax nii boo deewee lu may wax suma lu suñu lu may wax pap kooku am koo xam ne tol na ni Tyson taximan la woon maa ngi moom ñu ànd bi ma ñëwee di ko nettali mënu kooku nu mu def ma ne ko tax nga jàpp image kooku. mu ne bi ma gisee dama am yaakaar ne comme yàgg moom yéen a nekk dina la dimbali ci gaal te yàlla xam na ne kooku muy wax tool ci biir gaal bi tëdd na juróomi fan yoo xam ne buñ joxee lekk maa ci bu fat pour mu lekk pour wane ne du kàttan du fit du dara lu dul ndimbalal yàlla mais gaal gi moom ku ci xas a dugg loo amoon jeex yàllaa ba des bi ñuy bisee ci côté bi ngay wax mu difficulté ak lépp

ñun suñu dëkk Pikine ginnaaw raay ñaari école benn école publique la amul boo xam ne presque li fi nekk ci xale kenn xamul nu mu toll man ak sama benn xarit ñu waxtaan comme mus naa dem ci benn école am comme école yu xawoon spécifique la parce que c'est des écoles associatives nekkul privé nekkul publique ñu waxtaan ci man ak moom man ak xam naa ne comme sama quartier bi bëriwul école amoon na benn kër boo xam ne presque ça servait de dépotoir d'ordures ku doon tuur mbalit maison abandonnée la foofu koy tuur yi ma ne ko mais pourquoi pas demander foofu ma dem foofu jël charette dindi lépp lu fay mbalit commencé def ko benn école jël xale yi commencé di leen fa jàngal jël benn étudiant boo xam ne presque arrêté woon na te liwul ak benn maîtresse mu yor petit moyen grande section ñu tàmbale di fa nekk di jàngal xale yi école boobu ñu def ko deuxième année bi école boobu ñu tàmbale woon di ko def yalla dogal ma am ay partenaire yoo xam ne benn association lañ yu nekk Montpellier ñu wax ñu leen di wax waa ñu nekk en partenariat ak école bi ñëw yónni ay étudiants ñu ñëw def bénévolat école def fa une semaine quinze jours du mois def ay réflexion ànd ak xale yi partagé bi ñu delloo ñoom France ñu ne dañu war a def une journée de restitution activité yi ñu defoon fii xaalis bi ñu leen joxoon bayri ci jàppoon don ñi defoon don ñoom dañuy organiser waat ci université une journée de restitution boo xam ni dañoo bëggoon man en tant que directeur de l' école ma ñëw assister ñu defoon ma une lettre invitation grâce à cette école ma voyagé dem France pour la première fois donc ma dem foofu assister rencontre bi ba lépp jeex ma ñibbisi continuer ba tey ci tënk grâce à cette école mu permettre ma nga tàmbali parce que def école associative mooy école boo xam ne presse sociale lay def yàlla dogal mu may ñu ci dëkk bi ñu dëkk benn peut-être tur bu tuuti ba ki nga xam ne tey moo nekkoon le maire nekk fa en 2014 bi mu demee ba ne dafa bëgg dëkk bi ci loolu mu seet sañu parce que dem na ba gis ne am nañ benn affinité ak beaucoup de parents ak waa dëkk bi mu seet suñu dafa bëggoon ànd liggéey ak moom. ci am wàll li waral ndaw ñi di dem te loolu dañ ci insisté mooy dañu am une société sénégalaise très violente parce que suñu société bi rek ñoom ñooy wax jur mu dee firiwul yara dal waaye jur ponkal mu la léng te fajul dara loolu mooy yara dal ah, man ma juddu nekk ponkal gestu gis sama yaay mënuma ko fajal benn soxla dekk ak sumay naw la ñuy faj seeni soxla waajur dëgg-dëgg saay bu ma xoolee sama yaay gis ne ko fajal dara kon man sama dund gi ak ñi dee ñoo yem kon su boobaa dinaa tànn jël gaal gi lu am jël kon société bi ñu ngi wax wax yoo xam ne dëgg-dëgg mu ngi puus ndaw ñi ñuy xaru ji te duñ ci bàyyi xel doom ju baax nday ju sëy moo koy joxe kon filek amogo alal mënuñu la jàppee ci doom yu baax yi kon dina tax ndaw moo xam ne amagul dara moom tamit ngir sagal waajuram dina ko tax moom it mu jaral ko jëli gaal parce que dafa jàpp ne kon yaayam sëyul kon ñu ngi wax wax yoo xam ne bàyyiwuñ ci xel waaye dëgg-dëgg wërsëg daal ci loxo la yàlla la nekk kum ko pare jox kenn du la ko tere am kum ko joxul kenn mënu laa jox. bëggoon dem ci yoonu géej gi bu déggee lii wax dëgg yàlla dina ko teg ci suuf man de bu ma demoon ba ñàkk tamit li mu wax nii tey bu jaroon may lekk suuf si sax di ko aññee di ko reere moo ma gënal. jaar ci géej gi wax dëgg yàlla gis naa ci sama bopp lool te bépp zone boo xamante ne aussi xam naa ko wala di dégg mu koy mbébét dinaa ko nettali li kii nettali ci wàllu géej gi donc ñu ngi jox aussi kàddu gi suñu beneen exposant bi moom it mu sànni ci kàddu wax ñu tuuti rek jeune li tax ma ne di ñaaxaar suñuy morom jeune mooy euh, presque bi ma demee si gaal léegi 20 décembre lay def un an six mois 20 décembre bii di ñëw lay def un an six mois bu may dem nag motivation bu ma àndaloon wax dëgg fa neex yàlla du papa du yaay du frère du sœur bu ma mën delu. dellu wax ba ma arrêté li ma bëgg a def quoi parce que lu tax loolu mooy jàppoon naa ne dem si gaal yi rek mooy solution lu tax dem si gaal yi rek mooy solution dama am samay nit samay xarit yoo xamante dañ ci jaar jàll te li ma yaakaaroon loolu amul du ñëpp ñoo fay jaar jàll du ñëpp ñoo fay dem tamit réussir léegi bu ñu jour bi may dem mu ngi tolleeg tombeeg samedi sama benn xarit cag-cag moo ma yóbbu mu ngi tudd Mayoro moo ma jël si yóbbu ma ba gaar boobu maraîcher moom bi ñu waxtaanee tak ba mu may woon ginnaaw dafay mu ngi jooy naa ma booy boo desee foofu la laay waa kër ma ne ko non non soit effort lii du dara dañuy dem dañuy yegg ci jàmm loolu laa gëmoon loolu laa doon doxee di ko waxee yi tamit bi ñu demee ñu ngi ñu ngi ñu ngi départ ay 23 heures egg euh, Fatick ay presque 2 heures 2 heures et demie du matin ñu jógewaat Fatick dem euh, dëkk bi ñu naan euh, nangaan bi ñu yeggee nangaan nag. si la ñu yëg gaalu bi benn gaal bi ma demee 265 personnes yoo xamante ne fees nañ del del si gaar gi te ñu ngi waroon départ le lendemain am ñeneen ñu war a ñëwaat ci biir gaal bi ma ne man fi ma toog ak gaan bi ma toogal ma ne ko grand mun a mun ma ne ko est-ce que risque yi ñu jël nii jar vu que situation bi mel nii mu ne ma booy nii de man maa doon xalaataat di wax lool mu ne ma booy bul bul bul bul bul négatif dans ta vie dañuy yegg amul amul muskila mu ne ko alhamdulilah noonu ñu toog xëy lan deme ndekete gaal gi lëndi lay dem ñu def trois jours nangaan sàmm si mangrove si ginnaaw si si si si ginnaaw ginnaaw parce que fa lañ laxoon gaal bi bañ marine bi fekk ñu fa mais trois jours yooyu noonu ñu def biir nangaan ndek comme éternité wallahi la affaire bi métti na lekkuñu naanuñu xiif nañ mar nañ situation bu metti man man ma ne man risque bu mën nar a jël nii pour lan la lekkuñu naanuñu ba pare ñu ngi ñu wax ne samdi la ñuy départ départ uñu lépp waa ji ma toogal tamit mu continuer di ma motiver naa ma booy bul bul négatif dangay régler yegg léegi inshallah affaire yi jeex noonu ñu ànd toog ñu waxtaan mu motivaat ma ba ma toog jëlaat loolu yëpp teg ko suuf ñun bu timis jotee suñu gaal bi ci yam suma suma suma suma leen ko waxee peut-être ñenn yi mën nañ ko def lépp wala léppoon nitu guddi dañu sonaloon lool ñu xiif lool mar lool loof lool ba pare di neer H24 muy man di samay moroom man may délirer comme pas possible ki ma doon li wax nii kooku moo ma doon dimbali moom moo ma nettali li ma doon def pour bref rek laa lay wax ah, ñu ñu toog cinq sixième jour septième jour suñu kanamu gaalu bu xar parce que dugg nañ zone internationale vague bi mu ñuy contrer am ko jékki-jékki rek tëb si biir géej gi kenn xamul lu ko tëbloo muy benn ma ne man kii tëb si biir géej gi pourquoi mu tëb si biir géej gi comprendre ñu mais bi mu tëbee ci biir géej gi d'après si li gars yi di wax nee nañ nitu guddi la mën nañ ko gëm parce que lu tax mën nañ ko gëm man maa ko dund bi mu tëbee si nguur gi ji suñu gaal gi amatul jàmm tout le temps day vagues yi day yëkkati gaal gi ba eh, si kaw di ko bàcc suuf ngay dégg kay eh, kanam gaal nu mu naan kéej di xar mëntuñ avancer retourner rek lañ war a mën ba risque boobu noonu pour lan bokk man manan sama xel man risque bi ñu jël ni pour lan dem Europe ndax jar na ko li ma toogal moo doon motivé man déggatuma ko parce que li muy wax man déggatuma ko parce que man jàpp naa ne euh, li ñuy def nii risque la suñu bakkan xaj na si ñu réer benn bi ñu duggee zone internationale ba gaal xaar suñu euh, capitaine bi war a ne day tourner parce que mënutul avancer li ñu desee si essence bariwul bu avancer dina jeex te dinañ bu avancer kanam gaal bi dina xaar ñun ñëpp dinañ des si gaal bi man benn maa ngi xalaataat sama bopp parce que mënu ma fee. bu gaal bu xare dinañ wàcc liggéey amul kenn ku nekk ci gaal bi ku takk gilet amul kenn ku nekk ci gaal bi ba pare takk gilet yeneen risque ñu noonu encore léegi euh, capitaine bi ne day tourné bi mu ne day tourné am ñu nekk ci gaal gi ne ko doo tourne gars yi nekk di jotante si biir gaal bi ba ba mujjee am cinq morts ci coow loolu cinq morts gars yi jàpp leen nii ci ndox mi tëmbal leen ci biir géej te pourtant ñu moor yooyu noonu man gënuma leen pourtant mënoon naa si des mais yàlla suturaal nañu bay bokkuñu si pour wax la risques yi rek man risques yi rek laa la nekk di la expliquer de parce que monsieur seen wax na lépp léegi bi ñu demee euh, ba coow loolu xaw a fay bi ñu sàndee euh, cinq personnes yooyu noonu si biir géej mais tamit amaat nañ sept blessés yu yu tax yoo xamante ne ñenn ñi dañu leen doon wax ne ay nitu sept blessés grave yoo xamante ne ñu ngi ci dund ak dee ñooñ tamit ñii neen na ñu ñu àndaloon nee nañ duñu ay nit guddi juste dañu doon déliré rek te man mën naa gëm loolu peut-être man bokkoon si naa si ñu doon déliré ak sama yeneen morom yoo xamante ne si biir gaal bi lañ xamante six jours yi ñu ngi doon waxtaan ci jàmm mais bu demee ba septième jour huitième jour ñoom ñëpp tamit dañ doon déliré mu yërëm leen. léegi par la suite bi ñu sunu capitaine bi ne day tourné coow li loolu gars yi xeex si ba mu ay moor affaire yooyu bu mujjee trouver consensus waxtaan capitaine bi tourné parce que mënatul avancé mënatul avancé parce que bu avancé kanamu gaal bi day xar te bu xare ñu ñëpp dinañu dinañ dee léegi gars yi tournée bi ñu tourné capitaine bi réer GPS bi réer ñu ne nit guddi yi ñoo euh, ñoom ñoo gëlëmal capitaine bi ba capitaine bi trouvé yoon bi quoi ba benn waay moo ñu dimbali koo xamante ne mool la si biir géej gi pour wax la ne ñun si risque lañ nekkoon euh, am na ku nekk si suñu gaal bi mu woo marine Sénégal bi ñu ñëwee ba buñ ñu dawee ba Mauritanie foofu lañ amatul benn aperçu si fu ñu nekk bi mu xam nañ ñu ngi Mauritanie mais ñu teer Mauritanie parce que amatuñ GPS benn ñaar suñu carburant mi ngi waay ñett bi sunu capitaine bi moom mënatul yóbbu gaal bi léegi benn booy mool moo jël gaal bi moom tamit yoroon na GPS mu ne ñii ne nañ teer dakaar ñii ne nañ teer Saint-Louis ñii ne nañ teer Mauritanie mu nekkaat beneen coow encore ci biir gaal bi ñu defaat fa 10 jours fu ñu taxaw noonu di war foofu ci dëkk alentour boobu noonu onzième jour bi yàlla suturaal bi bi ñuy daw euh, diggante Mauritanie ak euh, Saint-Louis santeeg ay mool léegi euh, capitaine bi waxtaan ak gaay na leen ñaari machine ñu ngi fi rien que pour ñu teer parce que instant ñun bëggatuñ ci dara teer rek lañ bëgg pour ñibbi nekk suñu jàmm bi ñu bi ñu pour bi mu bi mu leen proposé daf leen ne da ngeen di jël ñaari kii bi nu mu tërsi ñaari euh, moteur yi pour ngeen fexe ni ñu teeree parce que ñun mënutuñ teeral gaal parce que booy bi jël jëm na mais mënul léegi ñooñu kenn moo moo ñu dimbali léegi ñu fa ñu fay leen ñaari moteur léegi si lañ ñu jàppalee bañ teer Saint-Louis bi ñu teeree Saint-Louis police police saint nar ñoo jàpp waa dëkk bi ñoo ñu dimbali man nag dama jàppoon ne dugg si gaal moom mun a yóbbu Europe pour moo réussir parce que dama doon football def moo dara xëy suba 100 francs tëmu comprendre ma jàpp ne su ma su ma demee si gaal yi situation bi dina régler dina changé bopp mais du loolu grace à l'association de monsieur Sène j'ai trouvé un travail bi ma ñëwee moom moo ma tete wan ma yoon ñu si seen association bi maa ngi liggéey si euh, maire bi nga xamante ne moom moo fa nekk adjoint au maa ngi service courrier maa ngi siy gis sama bopp maa ngi sant yàlla gaal moom tey man de du ma si te képp ku ma xam ne yéen di nga si yëg dinaa xaw dinaa yolleeku naa ko wax ko sa famille ba dinañ la empêché parce que ki yegg sax moom ki yegg da ngay toog di waxtaan ak moom mu ne la booy su démb doon tey du mu yegg si gaal te kooku dafa yegg ki yegg moom mooy loxo ba pare di la di déconser képp ki xamante ne mu ngi def lool donc wax dëgg fa neex yàlla risque bu si nekk fu ñu ko natt rek weesu na fa Vieux Nying ak eh, Gore njay ak Ndey Kan ak Ibu Ngatte ak Mamadou Touré ak professeur Seydou nia ñu ngi leen di sant bu baaxa baax ndax mbir bi su agsee fi yeen la man enda bi ñu ñëwee ma yore intérim ñëw suma kër ñu toog waxtaan ma déglu leen bu baax ma xam ni ñii li ñu indi lu am solo la ma ni leen dañuy jàppaat date ma woo conseil des quartiers bi ñu ñëw ñu toog ngeen ñëwaan ñu waxtaan ah ñu def loolu bi ñu demee ñu jàppaat date ma woo leen ni na jàpp nañu date tel ñu ñëw woo conseil des quartiers ñoom ñëpp ñu ñëw parce que ñi mel lim ñëpp ci lañ bokkoon ak bari na ñoo xam ni nekkuñu fi mais ci lañ bokkoon ci conseil des quartiers bi fi nekkoon bien sûr que prévisoire la woon parce que quartier mënul taxaw quartier délégué jóge na fa il faut ñu doxal ko quartier duñ ko bàyyi noonu mu taxaw kenn du fa nekk ñun ñu nekk fa volontaire di liggéeyal ndax yàlla rek nag parce que musuñu ci dara musuñu ci sàkkul lenn kenn mu ci jox un franc ñun ñoo doon jël suñu alal di ci def parce que bëggoon rek suñu quartier bokk ci quartier yi nga xam ni mooy gën a avancé jëm ci kanam bon bi ñu ñëwee ENDA ñoo waxal seen bopp de seen représentant yi fi nekk ñu ngi fi accueil boobu ñu leen njëkk a defal mooy bi ma wootee conseil des quartiers bi ak imam yi ak notable yi ñëpp ñëw ñu ñëw ñu échanger ak ñoom loolu moo tax ENDA engagé pour projet bi ñu indi woon ñu def ko ci quartier bi bon biñ ci jógee projet bi mu ngi commencé woon ci école ak toute sérénité ñu ñëw si école bi ma ñu indi leen si euh, directeur ak enseignants yi ñu waxtaan fii dugal nañ fi seen seen loxo ci école bi fi lañ njëkkee biñ fa jógee ñu indil ñu benn centre d'accueil des enfants de la rue mu ngi fii ci ci poste euh, de santé bi muy hôpital Bekkaay centre boobu du pour Cité Senghor rek c'est pour Thiès ville bépp délégué de quartier bu ñu indil xale bu réer tey fii nga koy indi à cause de ñoom parce que délégué de quartier bu xale réeree dañ naa yóbbu ko kër délégué de quartier délégué de quartier moo ko doon yor ba kër ñuy gis ay mbokkam mais léegi ku ci réer muy Thiès ville bi yépp nag parce que bi ñëwee ba ñu ubbi ko ba pare ba ñu lancé ko dama ko dugal ci panelu délégué de quartier région de Thiès bi yépp ba ku sa ku am xale fii nga koy indi sa dañ koy gérer ba kër ñuy gis ay mbokkam bon ñu jógee fa ñu procès bi di continuer ñu Nous avons une formation pour les jeunes la ba jeunes diplômés ñu jox leen ko ñu pôle d'emploi former leen formons. ñu leen former ba pare ñu dellu Nous ci quartier bi ñoom seen bopp di def causerie ak xale yi ba moo jur tey financement yi nga millions pour pour jox ko ah li ñu def li ñu ko ni ñu ko doxalee nag loolu c'est pour procès bi mun a continuer moo tax ñu ni dañuy fexe ba ku ñu jox ngay rembourser bu ko defee procès bi day mun a continuer du fi yem du fi yem ku ñu jox da ngay rembourser mais rembourser bi dinañ la ko defal noo xam di nga mën di rembourser sa du nga mën a continuer sa liggéey kon loolu yaakaar naa lu am solo la. kon film ne foofu la ñu toll ak ñoom ma leen di woo vous les jeunes Ibou Ngaté seen moroom yi lii bu mu yem fii parce que ñun liñ ci waroon def def nañ ko ah. fexe nañu ba ñu installé ci suñu quartier procès procès bi nag dañu ñaan yàlla mu continuer bëgguñu mu yem fii dañu bëgg mu continuer pour mu ne nag dañ koy gere parce que ñun dañ ko gérer moo tax tey ñu ñu agsi fii defoon nañu fi forom daaw forom boobu plus de deux 200 personnes mu ngi woon fii ñu amoon ay invité ay délégué de quartier ay bàjjenu gox ñu invité leen fii ñu def fi forom bu mucc ayib tey gis nga ko ni mu demee nii parce que information bi jàllul kon mbir bi ñëpp ciy jàpp quartier ñëpp ciy jàpp pour mu dox lu am njariñ bu ñëwee nañ ko téye parce que ñoom wax dëgg yàlla jàmbaar lañu école bi ñu toog dugal nañ fi seen alal. sa indil nañu alal boo xam buñ ko gérer aussi mu am njëriñ parce que jeunes yi mun nañ ci ñi nga xam ni ay góor góorgóorlu lañu mun nañ ci euh, sukkandiku di liggéey kon damay woo ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ngeen jàppu ci pour projet bi continuer parce que ñun li ñu waroon def nañ indi nañ leen fi fexe nañ ba implanter leen fi ba ñu indi fi seen seen centre indi nañ fi tam benn euh, benn point d'information point d'information boo xam ni boo bëggoon yooyu gouvernance ngay dem wala fële zone militaire pour am yenn information yi mais léegi mu ngi fii ci poste mu ngi fii ci poste de santé boo demee information boo soxla nga am ko foofu dem dellu sa kër kon jàpp leen ci lii euh, mu jëm ci kanam ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ku ci ne ci turam ak santam jërë ngeen jëf. ñu ngi nuyu ñëpp. nodd tabaarakallaahu moo tax ñu gàttal kàddu yi rek sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax dama naan li ma waroon a wax euh, kañ ji wax na ko ñi ma waroon a tudd it tudd na leen kon loolu dama koy ne rek lépp naa sa làmmiñ jaar naa ci li mu jaar yépp di nuyu rek sëñ Ismaïla Ba mu bokkoon moom it ci taxawoon di liggéey dafa naa moom rek la ci tudd kon sant nañ yàlla biñu ñu amee lii li ngay yóotu te jotoo ko ku la ko jox la ko nga ko njukkal kon waa enda na ngeen xam ne lii ngeen ñu indil dafa bokk ci yiñ doon wër far ñu tombeeg yéen kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral ndax li kànji fi yépp lu concret la loo xam li loo ci laaj dañ le mu ngi nii amul benn tappale amul dara lu lëndëm lu leer nàññ la lu wér péng la lu concret la kon ñu ngi leen sant di leen gërëm ah euh, suñu exposant yi nag li ñu fi wax alhamdulilah bi bi ñu amee télévision bi nga xam boo xam ne mën na koo génne koñ bi yépp di ko gis ndax tey ku ñëwul sax mën ngaa déglu li ñu wax muy lu ama am solo ndax nag maa fekke kaay ma nettali la looloo wér ki dund mbir mi ñëw di la ko nettali bokk la ku ko liir ci livre di la ko nettali ndax ñii ñoo ko bind ci livre ñoo dund mbir mi fekke ko nettali ko muy lu wér peng tukulóor dañuy wax ni njangu ko daxaado ñu ne guerre bu amee kañ ca jàpp def ko esclave moom la leer moom la guerre bi gën a leer ci moom jàpp nañ ko def ko esclave kon ñoom ñiy nettali man de dëgg dëgg dëgg dëgg touché nañ ma seen wax ji dafa egg ba sama xol bi nga xam naa ni su ma doon ndaw lu ma bokk mukk ci ñuy liñ fi wax dafa leer te sax dafa tiitlu dafa daw yaram côté yépp laale nañ ko fa wax nañu risque nag ñoom ñaar ñépp risque yi ci géej gi lañu wax waaye na ngeen xam ni jéeri ji it noonu la mel de xëy na amul kenn ku fi wax ku dem ci jéeri ji waaye bi ci jéeri bi sax moo raw bi ci géej gi kon yëpp a yem tabaarakallaahu sant nañ yàlla bu baax vraiment inda euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di leen tiiral chapeau ndax nag lii rek lañuy doy nit nit kenn du ko lekk kenn du ko naan nit day jëriñ nit ñi rek yéen a ngi ñuy jëriñ tabaarakallaahu yàlla na yàlla may ñu am ñeneen ñu mel ni yoon yéen ñu bari waaye yéen it yàlla may leen ngeen dem ci yeneen quartier def fa lu raw lii kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax lii rek laa waxoon naa ko wax ndax timis ji jot na salaamaaleykum wa rahmatulah waaye nag ñu ngi ñaan télévision bi aussi mu teg ko ay yooni yoon salaamaaleykum je m'associe au remerciement d'abord de jëmbale ko ci enda parce que waxoon naa ko sama njëlbeen wax bu may commencé wax certes on était pas à côté des, du conseil de quartier mais lépp lu xewoon quartier bi ñu ngi koy yëg parce que suñu quartier dañoo ñor dañoo ñor parce que fa lañ juddoo juddoo fi màgge fi am fi teraanga donc yoon la également ñun ñu fay ko fay ko bor loolu rek moo ñu dugal ci peut-être dem ba yàlla dogal ñu nekk délégué de quartier donc di leen di gërëm également les exposants parce que vraiment c'était émouvant daw na yaram parce que boo ko déggee ñun ñuy wax nii sax fii ci koñ bi

parce que am na risque yoo xamante ni waxu leen ko man demoon naa ba ne sax su ma jëlee te parole dinaa ci wax benn risque boo xamante ni dañuy wax wax ngeen ko sax peut-être euh, seen kii ne ay ay ay mauvais esprit maanaam ay nit du man je me dis que parce que nit su fekkee nekk na si dans des conditions l'instinct de de de de vie moo koy moo koy am moom la moo koy animé nu muy génne ci jafe-jafe yooyu lay def donc yenn saa ñu def loo xam ne sax da nga naan c'est surnaturel fekk ay nit njaay lañ. donc ne serait-ce loolu rek di bokk ak une centaine ou bien des milliers de personnes ci benn euh, navire de fortune parce que navire de fortune la man je di souvent que risque premier bi bi bi bi ñu am le risque premier autant pour moi ci bateau yi mooy que les capitaines tous capitaines de bateau ou bien de pirogue ña nga Europe ñiy dawal gaal yi du ay capitaine ñoo mën a yem donc loolu rek risque la da ngay dugg si oto boo xamante ni c'est un chauffeur chauffeur boo xam ne mënul dawal kooku risque la beneen bi aussi moo wax ci solution yi ngeen baal ma. mooy que comme wax na ko ci mbëlbéen kii am ci ci exposé am qu'on cesse la pression sociale da ngay dem si kër ñu leen ne yow sa morom yi ñu ngi def nii ñu ngi tekki nii soo gisee sa bopp na da ngay dem dugg si gaal yi il faut ëggee également ñun ñi nga xam ne ay kilifa lañ si biir kër yi ñu xam ni yàlla mooy joxe teraanga y a des gens qui qui sont là-bas en Europe ñoo gën a sonn ñu nekk fii Sénégal tey boo demoon wut liggéey ña fa dëkk ñoo la ko gën a bëgg que yow mii di ñëw naa da ngay donc loolu rek doyoon na ñu ñu ñu xam ne am na am na ay risques ci nekk di gërëm également le média parce que wax nga ko sànq su fekkee ñëpp mënuñu dem si kër yi wax ko defe naa su ko su ko dugalee dugalaat ko euh, dina nekk un médium boo xamante ni ñëpp nañ ko nañ ko xam ne lii c'est des risques voilà ñun aussi ñun ñu fi tey ñu nekk des vecteurs d'opinion muy sunu kër muy sunu quartier bi ñu nekk muy sunu diwaan bi ñu nekk ñu xam ni li fi dégg tey moom vraiment kuñ ko wax. soo naree soo naree bëgg sa bakkan doo dem voilà donc di ku di également terminer par gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo tàgg seen yitte ñëw parce que lii leen ñor waaw di ñaanal yàlla également inda ngeen jëm ci kanam merci également à l'animateur moo moo neveu donc ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci turu quartier bi di leen ñaanal aussi wér yaram ak fan gudd merci encore une fois te sànq mooy ñaari auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi jóge ba Dakar vraiment comme ni ko imam waxee rek wax waxtaan bi amoon na solo lool eh, la dernière fois ñu ngi woon ci activité parce que ñu séance séparé ko comme te ñu ngi woon ci bon temps toog carrément déglu bu baax a baax li nga xamante moom lañ doon wax mën naa ne tey la am occasion eh, gën a dégluwaat gën a xamaat li nga xamante ne moom mooy risque yi man sama sama man si boppam puisque ñu ngi sensibiliser c'est vrai mais am na loo parce que dunduñu ko donc ñi nga vécu donc sans plus tarder remercier ñëpp rek di leen remercier président Ousseynou remercier Tondo Mbaaxu mi Nous, le comité de sélection ñoom vraiment accompagné depuis le début du projet te benn yoon donc ñoo remercier bu a remercier exposants remercier l'assistance. pour seen teewaay fii nii